salaamaaleykum di nu Sénégal bi yëpp di sant yàlla jëli suñu bi di gërëm suñu waajur di ñaan yàlla na Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. waaw parce que vraiment am contentement d'abord bu rëy si ñoom njëkkee ko ci simoom xam nga vraiment am fi ay doom day ku ci mel ni Ramdiez xam nga am fi ay partenaire ku lim da ngay juum ak Bachir Seydou Bachir xam nga di am contentement nag bu baax a baax baax suma teewaat fii parce que bon lu ma yàggoon bëgg la xam nga tey man xam xalaatoon naa wala buggoon naa tey nekk commando nekk militaire mais nag xam nga xëy na yàlla suñu borom moom ma xër ci làmb tey bu ñu tëddee ba nelaw ñoom la waaw tey vraiment gis nañ ni ay jàmbaar lañu te tey maa ngi logo xam nga muy gaynde yi xam nga si nga moom kon ne xam na ni mooy Cœur de Lion xam nga ñu nekk ay jàmbaar te jàmbaar day bëgg jàmbaar waaw je vraiment moom contentement ñëw fii mu jig ma trop nag ñu ñaanal moom ma dem yàlla def ma nekk roi des arènes kon du ma def lu ñëwaat xam nga yeesalaat xam nga wone suma fidele ak sama colère bi nga xam tamit aussi moom lañu yàlla suñu borom boole ak ñoom ñu nekk vraiment ay ay soppe xam nga maam cofeel tamit aussi bu mag si ñoom rawatina Simon xam nga moom vraiment suma doom day la. kon euh, colonel Simon. kon du ma def tamit vraiment du am contentement lépp lu ma jàppoon ko bàyyi ñëw. d'abord am na ay ay programme yu bëri yu waroon dem mais dama mënuma bañ a teew daal lépp lu ma jàpp noo ko baay ñëw teew fii. Mm-hmm. si dama am contentement parce que lu may wax rek jàmbaar yi bëgg jàmbaar te gars yi boo leen xoolee gis ñoom jom ak jàmbaar ba mu jeex takk duñ dellu am amuñu tànk ginnaaw gars yi tànk kanam rek lañ am. waaw moo tax it vraiment damay gis sama bopp si ñoom bu baax am na sama benn combat bu ma bëre ak Gris lu combat bi métti métti métti dama yor jukkoy commando dama yor jukko gaynde ne lu mu métti métti du ma dellu ginnaaw kon tamit jukko jooju dama ko bokk ak ñoom ñoom lu mu métti métti du ñu xàddi waaw man damay gis sama bopp ci ñoom waa